am lu ñu bett rek ndax euh, bi ma xëyee euh, comme ni ma daan liggéeyee man comme maay responsable te mbir mi day de euh, dafa doon loo xam ne nii maanaam yombut ñaari morgo ñoo fi nekk morgue góor ak morgue jigéen bi yàlla dogalee ñu ñuy liggéey ni may liggéeyee mooy maanaam képp koo xam ni da ngaa aye garde dama lay jox caabi pour morgue góor ñi jox la caabi pour morgue jigéen ñi su fekkee yàlla dogal na maanaam nga fanaanee liggéey bu bët set soo xëyee maanaam da ngay ŋàbb sa caabi ubbi bunt bi ànd ak man ubbi turwaal yëpp fu fi néew nekk ma teg ko bët xool ba xam nan la fanaan ba néew yëpp daj góor ak jigéen su ko defee su ko defee ñu commencé liggéey yow nga libar dem bi ma commencé libare di di jox ñi ñuy sang ñuy sang tey nag bi ñu xëyee ah, comme nekku ma fi am na ku ma ko booyaloon su ma xëyee te gisoo ma eh, wanal kooku néew yi kooku moom woo ma ñëw mu ne ma man de numéro 4 ci jigéen ñi am na fa fu ma fa dem foo xam ne nii gis naa fa benn néew am na gaañu gaañu ma ne ko ah mu ne waaw ma dal di jóg waaxu dem ci morgue jigéen ñi ubbi numéro 4 xool euh, néew ba mu am benn góom waaye ma ne ko ah bii góom daal du tey ndax góom góom bu doon tey du wow ba pare ci kaw góom bi am dëtt li wër góom bi commencé ñuul boobu góom euh, nekkul ne tey la nag damaa yaakaar da ko fi indaale dal di ubaat ñëw toog di continuer sama liggéey biñ demee ba nga xam ne nii maanaam uh, ubbi nañ ko pour ay bokkam yooyu ñu ñu toppatoo ko ci la ci la ci la ko teg ci kaw lal bi ñu ne maanaam néew bi lii dañ koo dagg may leen ah buñ ko dëggee de xam naa du tey ndax bii góom déglu rek bii góom du tey ci loolu ñu ne loxo yi am nay xosi xosi tànk yi am nay xosi xosi ma xoolal door xoor baaraamu loxo bi gis gis euh, gis gis mu am xosi xosi dina ci ma xool tànk yi gis mu am xosi xosi dina ci waaye lu ci nekk xosi xosi la nekkut lu ñu tagg yóbbu amu ci fenn foo xam ne nii am na cër bu ñu fa dagg yóbbu te góom bi niroo góom bu ñu dagg góom boobu du tey góom boobu ci kaw gi commencé na weex am dëtt góom mënuñu koo dagg biig mu nàcc biig fer biig am dëtt tey ci suba kooku moom mënut a nekk te 11h minuit la fi néew bi ñëw lii moo doon problème bi. ay bokkam lañ fekk ci biir kenn ki njëkk a muri daal na ma soxna si maaka am na ma lii de mooy dañu jaaxal ndax biñ koy fat nekku ci woon te biñ koy génnee ci machine bi lii da cee ne muy fii dagg sikkim bi ak baaraam yi ma ne ko waaye yéen bi ngeen koy indi nekku ci woon mu ne waaw ma ne ko nuyu dey buñ leen fi fekkul woon sax dañ leen di woo ndax lii dafay faral di am te nun ñooy waajal nun jigéen ñi ginnaaw ñooy waajal lii tax na bala ñoo walaalati néewu kenn dañ koy woo mu taxaw ndax ay jigéen dong lañ dugaluñ génnewuñ xamuñu ci machine la xamuñu fan la te yéen bu ngeen dikkee na amu ci ah buñ waxee léeg-léeg ñu ne kon fi jigéen ñiy sang fi la amee te nun du masa ñaaw mukk mukk mukk mukk mukk ba ñu xalaat ko wala ñu jortu ko wala lenn liggéey sëñ Tuubaa moo ñu fi indi bu ñu ci gisee luñ xamut danañ woo ay bokkam ji kenn waaye nu it danañ seetal suñ bopp waaw ñi ñëpp kii moo ma doon sottil kii mm-hmm. moo doon tànq ndox di ante mm-hmm. baaraam bi moom doon na naaj baaraamu xawma ndey joor la xawma baaraam baaraamu day bi daal mm-hmm. waaw sër yi moom bu demul woon sax boo ko génnee danga ci gis deret wax dëgg yàlla ah yàlla moo xam doon na naaj daal yàlla daal a xam doon na naaj waaw sikkim bi fii moo dem waaw sikkim bi nag moom biñ commencé sang da commencé naaj waaye moom ñu ko woon muy naaj daa xawoon a mel na lu wow waaw waaye loxo yi moom wax dëgg yàlla doon na naaj waaw loolu daal lañ fi gis dafay am de dafay am de wax dëgg ndax ñaar ñu dëkk guy mbind kenn ki ëlya keneen ki ci des gaaraatu dëru keneen ki ci des dakaar la dëkk keneen ki ci des Kaolack kookaatam bam ñu bañ borom taxawee ni lii nekku ci woon ma ne ko kañ ngeen ko andi mu ne ci guddi mu ne ko nekku ci woon mu a waaw mu ne ko yow ndax yaa ko indi wala lan mu ne maa ko andi biñ koy dugal maak ngi ñoo ma ànd waaye di amu ci woon seeni borom nag dañoo ñëw margo kii moo leen indi ambulance te borom nanguwut a fanaan ma ne leen dem leen bu bët setee ma topp toog mu ne ko kon léegi bala nga cee wax dara lu leer dangay woo ña ko yore woon ndax am na ci wala amu ci bi mu woo soxna sa mu ne ko man de maa ko dog li waaye dara nekkul woon ci moom mu ne ko sikkim bi amul woon dara lu ci dagg mu ne ko déedéet mu ne ko nopp bi amul woon dara lu ci dagg mu ne ko sama yaay dar wóppul ba daray dagg ci moom daa ndogu ba noppi dem borom a ngi taxaw borom a ngi taxaw nun bala ñëw summi benn néew borom day taxaw waaw ndax nag ay jigéen lañ nun ay jigéen la ñuy waajal nun ay jigéen lañuy waajal waaw toppul mag toppul ndaw daf fi am daal waaw wax dëgg xale yu ndaw ndawaan yi moom amu ci waaye mag ñi moom am na ci wax dëgg yàlla waaw wax dëgg yàlla ndaxte nag àddina neexut mm-hmm. te ay jigéen lañ mm-hmm. boromi njaboot lañ mm-hmm. waaw loolu la